yaa ngi déglu wante aussi sinon day pénible yaa yaa Seyda moom loolu moom la concerne d'accord parce ko ko d'accord ko ni ko force da ngay liggéey d'accord ki la war maa ngi ñëwaat ci yow boo liggéeyee ba sonn boo ñëwee ba fekkee waaj da nga ko war a toppatoo loolu mooy dëgg d'accord yaa Seyda Maya Aïcha ma waxaat encore li ma wax dama ne yaa Seyda dangaa wax nga contredire sa bopp <laughs> gis nga liggéey bi hmm. nga xam ne nit ki jël na ko pour liggéey ko ah. c'est un choix yow yaa wax fii léegi ne droit à l'éducation maanaam droit bu ñu am la ba pare. Mhm. jox nañu jigéen droit moom mu dem jàngi ki nga xam ne dem na jàngi nag dafa am ay choix mun na nekk pilote. Mhm. mun na nekk économiste mun na nekk diplomate. sage femme su sage bu ñu jëlee. Euh, Khadija Khadija jabaru yonent bi. yaay Khadija nga wax. yaay yaay Khadija. yaay Khadija waaw amul problème benn la. su ñu jëlee yaay Khadija waaw amul problème xam nga xam nga ñun dafa am la dernière fois def nañ ci benn sujet parce que nous on a décomplexé l'arabe parfait donc euh, ñu bu ñuy waxtaan dama jël yaay Khadija ah comme loolu nga bëgg ñu wax. d'accord mm-hmm. donc soo ko doon jox posture aujourd'hui de la femme moderne de Khadija. lan ban posture nga koy jox. commerçante la woon. waaw da nga may waaw ñi ñoo daan dem di liggéey di ko indil moom mu toog. yaa Zeyda ma dégloo rek ma tontu. maa laaj de waaw déggal jëkkëram. Mhm. femme bu am kilifa. waaw mhm. wax mu tontu ko. Mhm. ku am entreprise am kon jamono dafay dox kon kooku tey euh, la mu bëggoon def xam nga yàlla bu bëggee bu bëggee dogal dara wala mu bëgg a jàngale dara day mettre yonent bi ci situation yi pour mën koo jàngale loolu mooy dëgg kon yàlla moo njëkk a layal égalité de genre ci biir alxuraan amoon na lu bari amoon na lu bari waaye mësta war yonent bi alal bi mu amoon damay bañ affaire yi dama rëcc damaa bëgg ngeen xam ne féministe mhm. Hmm. signifiewul compétition boo xoolee féministe dafay taqaloog mixité féminisme dafay taqaloog complémentarité féminisme dafay taqaloog li ñu naan la génération égalité maanaam euh, genre bi ñuy wax am na góor ñu bëri dañu yaakaar ne genre c'est contre les hommes alors que genre c'est pour et les hommes et les femmes maanaam dafa nekk pour góor ñi ak pour jigéen ñi hmm. euh, donc tey yàlla moo njëkk a layal jigéen buy liggéey ci alxuraan yàlla dafa ne ci alxuraan j'ai créé l'homme à mon boobu du homme ak petit h homme la avec grand H. Mhm. maanaam góor a ngi ci jigéen a ngi ci. donc jigéen nan la yàlla bu damay bañ mu romb nan la yàlla euh, défendre jigéen buy. mooy li ma la wax dama ne la dama ne la dama ne la bu fekkoon ne jigéen buy liggéey yàlla da koo tere yaa ngi dégg du mettre yonent bi dans une situation. boo xamante si nii dina tax mu dajeeg Xadijatu nga xam ne c'était la femme la plus riche moo gënoon jigéen bi gënoon a am xaalis ci Màkka mu yor ko te yàqu dara ci sëyam. doon na liggéey mais dafa am norme yoo xam ni daf ko respecté woon. bàyyi woon muy jaay bu ma dégloo rek la. dañuy waxtaan ala kulli yàlla. mais nañ ko déglu yaa Seyda après su ñëwaat ci yow. parce que li nga wax yëpp man jàpp naa ko. parce que Seydatuna Khadija waaw. dëgg la commercant la woon. dëgg la mais mës ta jël vol dem. est-ce que xam nga ñun ñu ngi jël ay avion di dem di tukki. mais mais yaa yaa yaa yaa Khadija. waaw fan lay jël vol. mënu ko eh, loolu eh, eh bu ñu nag ah, léegi nag xam nga moom moo amoon yow maa ngi ñëw ci yow mooy amuloon mais gëlëm moo amoon yéeg ci dem gëlëm moo remplacé avion passe si beneen nit après yéen ñaar ba ñëwaat ci yéen voilà vraiment vraiment ay continue après ñu bëgg rek ah, euh, euh, ñëw rebondir parce que téléspectateurs yi duñu comprendre bu fekkee da nga wax loo may ay dañu gaaw daaneel ñeneen ñi am rapport par rapport ak ci li nga wax parce que man aussi am naa ci position damay wax ne. yàlla moo njëkk a layal égalité de genre ci alxuraan. Mhm. boo demee ci alxuraan da nga ko fay fekk boo demee ci euh, bible da nga ko fekk yàlla mu ne see créer l'homme à nimage image. d'accord donc jëmm góor ak jëmm jigéen bokk nañ doon benn jëmm boo xam ne mën nga ne ko jàkk gis ko ci yàlla ci. ala kulli àll loolu mën na ne. Ah. la dernière fois indi nañ fi benn mbir moo ay dafay am solo ñuy wax xam ne. Euh, maa ngi indi am misaay la dernière fois mu xëy beaucoup de problèmes sur les réseaux sociaux euh, bëri na aaya yoo xam ne yàlla indi comme suratul Mariam nga topp fii yàlla sàmmee Mariama depuis Ali Imran surat 3 ba keroog 19 muy wàcce ci moom leen te il faut que ñuy dépasser yenn euh, yenn yenn yenn yenn obstacle yi nga xam ne mooy làkkum arab par exemple man ça n'a rien à voir avec le côté féministe man décomplexé naa par exemple la langue arabe donc suñuy waxtaan man ak yow li nga fi wax nii yëpp aadama hmm? ah kay li nga wax fi yëpp ku ñulug sa jëkkër yàq sa doom nañu waxante dëgg rek ku ñulug sa jëkkër yàq sa doom ku def lii def lii nu déglu rek Yazida bu fekkee ne man man bu fekkee ne loolu diine la bokk euh, dafay baax parce que jamono tollu na foofu xam nga damay wax ne euh, jamono toll na foo xamante si nii bu fekkee ne yow da nga mën a da nga mën a indi par exemple arabe bi euh, alxuraan à travers l' arabe ñun aussi am nañu droit parce que Sénégal aussi ñëpp ñoo ko bokk te féministes yi avant ñoo nekk ay féministes ay sénégalaises lañ avant ñoo nekk ay féministes dañu am ci communauté bu ñu bokk li nga wax nii ma ne la loolu aadala la et c' est très important ñu ciy bàyyi xel yaa Zeyda euh, pour wax la rek nela la euh, droit yi nga xam ne moom la féministes yi di kaas li li la ñu yaakaar ne dafa uteeg diine mais bu ñu xoolee ba ci biir on prend en compte loolu parce que ñun ñàkkuñu fayda ci diine te te te te te ñàkkuñu fayda ci faydu bi ñu ne parce que loolu aussi il faut que ñun ñi di ko xam. xam nga les gens moo léché euh, Sofia. Mhm. sur les réseaux sociaux. Mhm. mais pour wax la rek ne la féministes yi yow yaa ko wax la dernière fois dañuy gis féministe boo xam ne dañuy nekk ci dañuy jël ñi nga xam ne ñoo jàng alxuraan ñëw di jage leen xool lan la yàlla wax ci alxuraan bi xool également bible bi lan la ci yàlla wax. donc loolu c'est important à ton à notre à notre niveau mais bu fekkee ne tey dafa am loo xam ne aada la ñu indi ko mooy wax yi ngeen doon wax tout tout le temps mais dafay am solo ñu ci revenir parce que dafa am aada yoo xam ne Sophie euh, la dernière fois seetaan naa seen benn émission ñu ne góor bu nàmpalee bu bu bu bu dafa war a fay jabaram. rafet ko mu nàmpal doomam xam nga lan moo nekk biir Sénégal nañ ko nangu on rappelle trop aux femmes leur devoir et on oublie de rappeler aux hommes leur devoir ci sëy ba la commencé. bu ñuy muur ku jigéen ki la ñuy muur donc dafa ku jigéen ki dafa nekk nit koo xam ne dañ koo sëf la réussite même du ménage féministes yi foofu la ñuy waxee ne effectivement par rapport au code de la famille il faut ñu xoolaat ko xoolaat ko parce que des fois les gens se cachent derrière la religion pour mën di euh, occasionner wala ñu mën di daganal yenn mbir yoo xamante si ni taxawul te féministes yi ay jàng bu yow mën nga nekk féministe ba nekk nekk jàngkatu arabe. Mhm. nekk réussir nekk jàngkatu arabe nekk jàng réussir ci am ci poste pourtant nga nekk féministe. Mhm. góor mën na nekk féministe Prospère mi mën na nekk féministe. maar day taali bu la neexee mais ku nekk cest à féminisme idéologie la. loolu il faut ñu xam ko donc droit yi nga xam ne moom la ñuy kaas en tant que femme en tant que féministe wuute ak lenn te taxul. benn yoon diine bañ a ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ay mbiram donc vraiment euh, loolu laa bëggoon indi di wax aussi ni na nit ñi dindi sensationnel bi parce que des fois da ngay ci sa yenn accoutrement yenn des fois pour di wax loo xam ne te nit ñi dañuy maandu daal loolu am na ci solo d'accord euh, aliment ñu bàyyi la nga laam ba xam <laughs> am na ñu nekk ci bi voilà euh, bu nekkee ni am na ñu nekk serveur bi ñu jël leen ci 88 628 89 90 mbaa 88 628 28 28 allo allo. oui allo. allo. oui asalaamaaleykum. maaleykum salaam soxna si ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay merci beaucoup. ñu ngi déglu sa xalaat ci jam euh, bi téléphone bi. Ah, man euh, li mu bëgg wax mooy que ne franchement man je vois que ne dafa am problème de am na problème de. dégguñu ko bu baax donc s'il vous plaît. Aziz. soxna si nga ni lan. ma ne ma ne ñaari côté yëpp am problème. Mhm. ci ci sénégalais. Mhm. parce que man li ma gisee mooy dafa dafa am problème des côtés des femmes du point de vue que ne de euh, jigéen Sénégal xamuñu seen aspect pour mën a xam ñoom lan mooy seen ay pouvoir lan mooy seen ay devoir te loolu problème la. voilà voilà soxna si boo mënee yokk sa baat. ñu gën la dégg day wàññi teleem déjà dafa jege teleem. allo. soxna si da nga jege sa télé da nga koy sori wala nga fay ko. non pourtant sama télé fay na mais Angleterre boobee xam naa loolu sax ligne bi leerul noonu. d' accord d' accord ñu ngi lay déglu. man man par exemple le terme féminisme ça me ça parce que man dëkk bi ma nekk bu ñu doon jàngal féminisme. Mhm. Euh, xaw ma nag fii yi nga toog ko xam mais. dafa jot li ñu doon jàng mhm. ñu gis que ne man man ci ma ma gis man sont une femme noire une femme africaine et une musulmane bi phase bi ñu doon jàngal loolu ñooñu elles n'ont jamais défendu les droits des femmes qui qui étaient des esclaves man loolu ça me dérange parce que man je di dis boo jógee ba taxaw nga ne da ngay da ngay xeexal jigéen mais mhm. pourquoi pas aussi doo doo doolliwuñ woon jigéen euh, les femmes noires jëkkër yi papa yi doon violé di maltraité xam nga kon loolu ñoom seen seen seen xeex man je me vois pas je je me vois pas comme quelqu'un qui est inclus dedans mhm. kon mun ñu bokk mun ñu bokk ay objectif déjà pour commencer mais en bu may xool situation bi comme une musulmane je me dis que ne boo boo boo jëlee coran bi rek donc ab débat amatul boo jëlee coran bi nga xool par exemple le prophète Mohammed rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu moo doon dundee ak ay jabaram. Mhm. débat mënu fa parce que moom il est moom moo moom wax ne le meilleur des hommes est celui qui traite sa femme et sa famille de la meilleure manière et moi je suis le meilleur d'entre vous loolu loolu c'est un autre le disait mais man je vois que ne góoru Sénégal il ne reste pas ça man par exemple sama jëkkër Nigéria la la jóg man sama sama jëkkër damay toog des fois du am par les les dimanches il sait que je suis fatiguée duma am envie jëkk di jóg sax ci lal bi mu na ma amul problème moom mooy génn moom mooy dem moom mooy dem nuggi moom mooy ñëw toog c'est pourtant ci kër gi te man at moom at suñu ñaari doom yu jigéen. isaan xam nga loolu boo mënoon ne que de am na ñett warul am pour moom muy def loolu mais du ko xoolee noonu dafay dafay xooli comme que ne. man mhm. sama jabar dafa sonn. sama ay doom dañoo sol tey maa leen di toggal man maa kër gi te dafa ko dara par exemple bu ñu ñëwee Sénégal ñu ñu nekk sama kër yaay euh, ñu tegal ñu añ ñu ñëpp ñu añ ba pare sama jëkkër jóg nettoyé affaire bi mhm. débarrasse yëpp ñoo dem jëli bale ñoo nettoyé yow foo ne boobu son yaay dafa choqué woon yow foo nekkoon. maa ngi maa ngi doon soog. maa ngi maa ngi woon soog. dama bëggoon jóg mu ne ma. ko xool muy bale. yow toogal nga nga waxtaan nga ak. toog di xool si di bale. cinq ans que ne man ak sama yaay gisante wu ñu woon. Mhm. ñoo doon déggoon téléphone rek c'était la première fois. Mhm. donc. allo. dégg nga papa li mu wax. waaw dama ko bëggoon laaj est-ce que su sa borom kër nangu allo. dagg na euh, euh, ndax noo wootee moo sori Angleterre la wax. allo kër yëpp toog sa yaay di bale loolu baaxul de. allo daan ci ñëwaat léegi daan ci ñëwaat léegi pour yéen ñaar. loolu de maa rëddee taali. allo. yéen ñaar kese garaawul waaye seen waa kër yëpp toog sa jëkkër. alors 88 628 89 90 allo. yàlla na ko yàlla xaaj. oui allo salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi. waaw ah, ça va alhamdulilah. ñu ngi lay déglu sa gis-gis ci thème bi. waaw maa ngi lay maa ngi leen di nuyu man sama wolof leerul noonu comme émission bi yàgg naa ko seetaan. Mhm. dama bëgg participer ci émission bi quoi. Mhm. man émission thème bi am na solo bu baax a baax ci jamono bi fu ñu toll instant bi. Mhm. parce que man fa su ma seetaanee émission bi damay tiit. billaahi wallaahi watallaahi. parce que France laa nekk te awuma jabar awuma doomu awuma dara. ndeysaan. munu munu ma ne sax mun naa ci xam benn mun naa am benn expérience boo xamante ne ci wàllu sëy lay doon. Mhm. mais il faut d'abord féministes yi maanaam ñu toog seen plateau yi il faut que ñu xam ñu xamal leen premièrement. Mhm. maanaam féminisme fan la jóge mhm. ci ñan lañ jóge est-ce que ñoom bokk nañu aada bokku nañu gis-gis bokku nañu ci wàllu diina fii nii fu ma nekk nii féministe bu dee droit li ñuy wax nañu li ñuy wax ne dañ koy defendre nit boo nit booy défendre dara looy parce comme jógul ci ñun looy gis il faut nga xam conséquence suba lan lay lay jural. Mm-hmm. mais fii ma fu ma nekk fii nii. est xam nga ni deux mille deux mille euh, dix neuf bi ñu jógee ni c'est-à-dire conséquence su féminicide laa leen lu wax. cent neuf jigéen lañu ñu ñoo gaañu. Mhm. ci seen ku jëkkër. Mhm. te ba léegi mi ngi wéy deux mille bi mois de janvier à mois de mars trois mois vingt huit personnes ñoo dee ji ay jigéen lañu te féminisme fii la gën a fii la gën a tàng. même mois de mars am nañu benn euh, défilé euh, bi ñu benn mars bi ñu defal dañu leen di duur duur boo xamante ne kenn mënu ko xam su nekk fii. mais ma c'est-à-dire ñu bàyyi seen ñu bàyyi xel ci conséquence li ñuy jural suba. Mhm. parce que dina dem parce que day am dafa am ñu biir kër gi ñu am problème. Mhm. seen seen biir kër dañ leen di déglu. Mhm. te mun nañu jël référence ñii di wax ni ne ay féministes lañ léegi suba mun nañu génn seen kër fan la ñuy jëm. kan moo leen di défendre bu ñu génnee seen sëy. mbedd mi lañ jëm. est-ce que ñoom ñoo défendre wala fu ñuy jëm ak seen doom wala fu ñuy jëm ak xawma lan laa koy waxee. uti appartement euh, uti appartement. Euh, am na benn femme bu mu waxoon ne moom dafa. ci mbedd mi décomplexé ci arab mais de décomplexé wul ci français parce que koo xamante ne sénégalaise nga cent pour munoo wax deux minutes. yaa ngi topp hmm. def naa ne loolu musiba laa musiba la billahi wallahi taala des fois man ci intellectuel yaa Seyda neen dala kaa bëgg a may rek dala kaa bëgg a baaxee vu que amuloo soxna fi mu ne nii dalaa bëgg a baaxee may dalaa bëgg ndax nga yaral ma ko yaa Seyda lu mu wax dama la ko bëgg a may nga yaral ma ko ñu ànd ak ñoom parce que man arab laa jàng dëgg la man néew arab si laa Mm-hmm. sama dund parce que yonante bi moo ko wax moo ni laa ya laa tarda an ka yahuudu wala nasara hatta tattabi aw millatahum mm-hmm. gis nga eh, nasara yi ak yahuud ak arab yi ak xawma lan cest à que musulman yi bokkuñu loolu la ñu war a paa bi yàgg na leen ko wax bokkuñu nañu fa suñu aada ak suñu culture. dëgg la billaahi wallaahi boo xoolee Afrique des fois xaw ma boo leen génnee si biti boo gisee jeunesse yi fu ñu def lu ñu mel xanaa doo leen yéem doon ndeysaan amuñu culture amuñu dara bu suñu président yi suñu kilifa yi wala français suba français ngoon mënuñu sax exprimer wu une minute. seen làkk boobu ci tubaab. dana bëgg a bafouer suñu tradition. bafoué complètement bafoué. papa ñu ñëwaat tuuti ci balaa may jox kàddu gi volupté ak euh, Sophie euh, soxna si woote sànq maa ngi gis yaa Seyda di ci sànni moom itamit kàddu woom. c'est-à-dire say waajur toog sa borom kër toog nga toog euh, ci aada ci lislaam naa ci ñëw ci yow. sa borom kër jóg di def yenn yi nga xam ne yaa ko waroon def wala ci suñu culture ñu jàpp ne ñun jigéen ñoo ko waroon def est normal parce que ñoom dañ koy jàppee par exemple modernisme dañ dem ba euh, rendre na la service te loolu day